Rahmet Evliya. président commission sociale et libéraux de parlement maa ngi dugg fii cité Sénégal. cité Sénégal. donc vraiment comme d'habitude ni mu koy defee rek. ngeen ñaanal ko yàlla. yàlla gën ko yokk. vraiment lu mu def xeet na. nit la boo xamante ni mu mën a mu mën yëpp dafay jéem. donc vraiment ni ko mën a def mooy ñaanal ko yàlla. merci beaucoup. waaw Paul Silva. waaw Paul Silva. ya ke Musilat itu sih ya ke desa <laughs> ya ke desa lah bikin silba bikin silba wih itu anak satu kulit bikin silba sedang farmasi wih Edward ya Oscar saya Denis Florence

Alfred oui. Angélique Badi Badi, oui, voilà. Mais cette fois-ci, a tout le monde reçu, hein Oui. Jean-Louis Gomis. Jean-Louis il n'est pas encore arrivé. Rose Boissy. Rose Boissy, là, voilà. tu viens de là. Ferdinand Félix Gomis. Sophie Marie-François, c'est moi-même. Je vous remercie, monsieur le maire. Okay. Chaque année, vous êtes un nouveau Vraiment, on tient à la remercier. Nous, on s'est connus à Dakar, on ne s'est pas connus ici à, à,

Donc, elle ne peut pas le que tu peux aller voir. Voilà. Je vous remercie de tout cœur. On donne 200 000, 250 000 par quartier, quoi. Mais puisque toi, tu as amené tout le monde pour le dire. Avec euh, son staff et tout ça, nous nous rend, nous, nous aide vraiment on ne peut pas le remercier il y a le fond pour réel il y a le yàlla pour ko même pour les même pour les aussi les pour les jeunes pour jox le transport et tout nous nous cotiser pour le repas et tout c'est lui qui le fait vraiment on le laisse avec le bon Dieu que le bon Dieu nous fait tout ce qu'il fait pour nous on le remercie de tout cœur vous aussi on vous remercie aussi de tout cœur merci beaucoup. yokk di ko ñaanal moom it vraiment moom ay mbiram moom dañ koy dañ koy dañ koy bàyyi ak yàlla comme d'habitude donc indi na leen chèque deux cent cinquante mille xeet na ko trop parce que saa kii dañ ko xeeb mais ñun xeebuñu ko même bu doon fifteen sax mu jóge sa xol rek xeebuñu ko yàlla fu mu jóge mu yokku fa lépp loo bëgg nag ah te sa liggéey yàlla na yokku kër ba daal kontaan nañu waaw merci fees ndax ci lu bett bettal mi neex na bett nañ ci monsieur nag ni ko tata ak ngay waxee yàlla lay bàyyi yàlla mi mën lépp yàlla mi am lépp yàlla na yàlla fay sa sa xol mm-hmm. jërëjëf catholique yi daal catholique Saint-Étienne ñu ngi lay gërëm duñu ñu di la gërëm di la sant waaw gis nañu acte yi ngay def yëpp yàlla daal moo mën a fay mooy mooy fay mooyo fay gën a gën a kawe gi moom daal leen lay bàyyal moo la ñu lay fayal waaw jërëjëf monsieur le maire jërëjëf yàlla na yàlla may ko fàttali nga ko yàlla comme ni mooy alhamdulilah rabbi alamina li ñu ñaanal li ñu ñaar liñ kañ ñaar le maire ak équipe am ca kaw ca kanam ca kaw ca kanam na yàlla ko yàlla may wér gi yaram mat sëkk dimbali ko jàppale ko ba li muy euh, nësër mu jot ko ndax ku am tuuti sa dëkk ak yow su amee nag su la ne naa jox pooj war nga ko gëm te loolu gëm nañ ko yaakaar nañ ko xam nañ ko ci moom te nag su may wax

baax na ñu ngi koy ñaanal. donc yàlla jàppale daal yàlla jàppale ko mu continuer loolu moom. gën a. comme d'habitude. c'est le bien pour un geste symbolique de comme d'habitude. nii li nga xamante ni euh, nii fuleet waaye li ñuy def mooy di ko ñaanal yàlla.

Moi, je, ne dis pas un maire, mais c'est mon grand frère. Je le considère comme mon frère. Il est vraiment, il nous aide, il est toujours avec nous. La cité Saint-Mansour, vraiment, le remercie. On est vraiment